asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen jàmm seen seen Leral Foot TV gaay may am mbégte saa su di leen defaral ay vidéo ga day ànd ak yéen tey ah, dañuy waxtaanee ci Sadio Mané moom mi nga xamante ne actuellement fan moo nekk avenir am ban club la mën a évoluer ci saison prochaine tey loolu la ñuy waxtaanee ah mais laata loolu gaay maa ngi leen di bu baax a baax képp ku bees ci bi ñu lay remercier te di la ne bul fàtte abonné waa nga aimé vidéo yi ndaxte lu am solo la ndax ñeneen tamit mën ko jot. gars yi tey nag ñu ñëw si vif du sujet bi ah tey dañuy waxtaanee si Sadio Mané moom mi nga xamante ni gars yi avenir am incertain la du côté de Liverpool actuellement gars yi ba léegi prolongé wu contrat am ak waa Liverpool moom nag gars yi un an moo ko dese juin 2023 la contrat am di jeex ak Liverpool gars yi ci loolu na dina nekk jour bu libre mun na dem fépp fu mu nekk gratuitement. waaye nag ah Liverpool avant loolu gis nañu benn solution ko jaay Sadio Mané parce que moom mi actuellement Sadio Mané gis-gisam yëpp dem la ci loolu nag am na club yu dugg foofu moo di Bayern Munich Bayern Munich dugg na foofu que Paris Saint-Germain ainsi que Barcelona gars tey loolu la ñuy waxtaanee nag premier club bi pour man Bayern Munich moo moo ci gën dañuy ñëw pour lan Paris Saint-Germain gars pour man nag du du du nekk transfert bu idéal ci Sadio Mané parce que du méngoo profilu Sadio Mané Barça ñoom amuñu fond bi pour jënd. Sadio Mané parce que ñoom ñu ngi ci dossier Kalidou Koulibaly mais ba léegi mënuñ ko indi ñoom fond bi moo manqué ci loolu nag gars dañuy ñëw ci actuellement Bayern Munich gars pour man Bayern Munich mooy nekk transfert bu ci pour Sadio Mané parce que boo xoolee Bayern Munich actuellement ñoom ñu ngi yor xaalis bi te en plus nañ ko proposer contrat bu baax nga xamante ne dina dina ci gis boppam te bu ëpp mu yore fële ca Liverpool Sadio Mané te boo xoolee actuellement Liverpool mu ngi ci treizième salaire. treizième la nekk en tant que un joueur comme Sadio Mané loolu mu nekk ay affaire yu ñaawa ah. te Bayern mi ni ñoom dañ ko proposer salaire bu baax te en plus que tamit gars yi c'est sûr que chaque chaque année la chaque saison maa mën na wax mën na jël ay trophée parce que joueur bu nekk loolu lay ñaan fépp fépp fu muy jouer daal mu gagné ay trophée tu vois kon tey jii ni Sadio Mané dina nekk transfert bu baax di côté de Bayern Munich bu demee foofu pour man dina nekk affaire bu baax te mën na gis foofu ndaxte gis nañ ni Bayern Munich ñoom ni ñu fubalee gis nañ ni carrément que avec xamante ne moo di que Thomas Müller foofu mën na dugal ay bi yu bëri parce que gis nañ Thomas Müller lu muy jox ay Lewandowski tu vois mais nag tamit bu fa fekkee Lewandowski affaire bi day gën a baax te équipe bi day gën a dëgër. parce que Lewandowski gars yi li leen rappelé moom actuellement ba léegi prolongé ak Bayern Munich mais en même beneen bi jour tamit bi war a dem moo di Serge Gnabry moo wax na carrément que day dem ci loolu nag Sadio Mané mën na nekk remplaçant Serge Gnabry foofu bu fa fekkee Lewandowski gars yi lool na gars yi pour man dina nekk affaire bu baax ci Sadio Mané te mun na sori ci lu xamante ne moo di li de saison prochaine ci loolu gars yi on espère que Bayern Munich euh, gis ci lu jëm ci Sadio Mané gars on espère que vraiment que des actuellement gars yi boo xoolee que la majorité des sénégalais que dañoo bëgg que Sadio Mané jóge ci Liverpool actuellement képp kuy sénégalais loolu nga bëgg Sadio Mané jóge fële ci Liverpool. ok gars yi tey lii laa indiloon comme info ah. di leen tamit gars yi ah, ngeen wax ma seen xalaat ci commentaire ci li xamante ne wax naa ko ngeen wax ma seen xalaat ci commentaire bi ak tamit ngeen wax ma tamit. ban club ngeen gis que Sadio Mané mën na évoluer saison prochaine nga wax ma ko ci commentaire yi maa leen déglu na dina tontu seen commentaire yi yëpp na gars yi ah. ok bàyyi di leen jox dig daje ci kanam ak yeneen vidéo jaa ngeen jëf.